sabbal leen baay barahama jërëjëfe baay war nañu jërëjëfe baay la la la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 fas yéene àndaat ak yéen ci suñu dars al ifada al ahmadiya li muridi saada al abadiya tey nag di suñu juróomeelu dars ñu fas yéene ànd ak yéen ba tey ci muqaddima diñ nekkoon ànd ceeg cheikh muhammadul hafiz al misri at tijaani radiallahu an nga xam ni dars bi passé am na lu luñ jëloon as lëf ci moom ci dundam ak jaar-jaaram ci wàllu xam-xam Eh, tey nag ñu ñëw fii nga xam ni laaj la boo xam ne laaj na ko ba pare di ci tontu muy hal yasixu an yaalama al wali annahu waliyun ndax dina wér ni waliyu yàlla bi mën naa xam ni moom waliyu la mu ne qaala al imam abul qasim al qushayri fi risalatihi radiallahu anhu sëriñ bu mag boobu ñuy wax abul qasim di imaamul Qushayri wax na ci téeréem bu ñuy wax ar risala al qushayriya radiallahu anhu ne waxtalafa ahlul xaq fi l wali hal yajuuzu an yaalama annahu wali ne ñooñ yàlla wuute nañ ci ne ndax waliyu bi dina jaadu dina dagan ci moom muy xam ni waliyu la am laa wala du jaadu ci moom mu ne fa kaana abu bakrin ibnu forik radiallahu anhu bokkoon ci ilimaan yu mag ci ahlul ashaira di boroom xam-xam bu mag waxoon wax mu ne fa kaana nekkoon na al imam abu bakr ibnu forik rahimahullah yaqulu daan wax ni laa yajuuzu zalika ne loolu du jaadu du dagan li annahu yaslubuhu al xawf ndax loolu day tax maanaam day rekki ci moom ab ragal wa yujibu lahu al amn te waral ci moom ak dal te loolu baaxut ci jaamu yàlla bi ndax jaamu yàlla bi dafa war a nekk ci diggante xawfu ak raja uduuhu xawfan wa tamaa te xawfu mooy ragal yàlla goo xam ne ragal yàlla ak biir la mooy xel mi xol bi demee ba dal ba yëg ni moom kat waliyu la texe na mën na kaa jural li nga xam ne mooy dellu ginnaaw وكان الاستاذ ابو علي الدقاق مومي تاميت سي بوروم خام خامو سفيان كيو ماغي لا بوك رحمه الله مومي تاميت نيكون يقول لي واخني في جوازه ندينا جادو ولي بخم ني ولي له وهو الذي نؤثره شيخ محمد الحافظ نينا لول موي لي ديف جيخيتال سي نون ونقول به تيتمت تاميت لول لا وليس ذلك بواجب في جميع الاولياء وانك دود ني دا فا وار سي بيب وليو رك مو خامني وليو دا حتى يكون كل ولي يعلم انه وليا واجبا بان بغا سخال ني كات دين بام بام دوني صح ني كل ولي بيب ولي يعلم نا خامني انه ولي ني مو وليو لا واجبا لوال ولكن واي يجوز ان يعلم بعضهم dina jaadu ci ñenn ci wali yi ñu xam ni ñoom ay wali yu leen kama yajuuzu an laa yaalama baaduhum comme ni nga xam ne noonu lay jaadoo am ñoo xam ne ci biir wali yu lañu bokk waaye duñu xam ne ñoom wali yu leen fa ida alima baaduhum annahu waliyu am na ci ñenn ñoo xam ne buñ xamee ni waliyu lañ kaanat maarifatuhu tilk karamatan lahu infarada biha wa laysa kulla karamatin li wali yajibu an takuna تلك بعينها لجميع الأولياء بل لو لم يكن للولي كرامة ظاهرة عليه في الدنيا لم يقدح عدمها في كونه وليا بخلاف الأنبياء موني آه، موتخ moo ولي فإذا علم بعض علم بعضهم أنه ولي ينيب خمين أي ولي لن كانت معرفته تلك كرامة له قم جم قم ولي كرامة ليدون نيلك بو خم نموم دون موكو جابو ت نكون ني بيب كرامة بو خم نيلنا أب ولي يجب أن تكون تلك بعينها دفاي ور مو نك moom karaama boobu nekk karaama boo xam ne dañ koy jëmmal li jamil awliya ñeel mboolem wali yi fi ne law lam yakun lil wali karaamatun zahira su fekkoonte ne waliyu bi amul karaama buy feeñ alayhi ci moom fi dunia ci àdduna lam yaqda adamuha fi kawnihi waliyan moom loolu soppiwu dara ci ne moom waliyu yàlla la bi xilaafil anbiya mu wuuteeg yonent yi ndax ñoom feeñal seen mujiza dafa war ci ñoom fa innahu naka moom yajibu an takuna lahum mujiza dafa war ci yi ñu am ay mujiza ay kéemtaan li anna annabiya ndaxte yonantu mabuusun ila alxalqi dañ ko yónni ci mbindeef yi fa binnaasi xaajatun ila ma xaaja ila maarifati sidqi yi nit nag am yitte ak soxla ci xam yan preuve muy dëggal lii muy wax ولا يعرف إلا بالمعجزة كن من تقام لي دقل يوننتو لدو تي كيمتان بومي إندي وبعكس ذلك كونترير لورنا كونترير يوننتو موي حال الولي حال الولي ملوكان ولي بي كون ولي بي دو شابت تي موم مو خامني ولي لا ولا موي فينال كراما غير ني گمني ولي لا لانه نختموم ليس بواجب على الخلق ورت مندي دو waruf ci mbindee fi wala ala wala ala al wali du caagin ci wali yi aydan ba tey al ilmu ci xam bi annahu waliyun ne kii waliyun wal asharatu min alsahaaba fukk ci ay sahaaba sadaqu rasul sallallahu alayhi wa sallam dëggal nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi ma axbarahum bi ci lim leen solo annahum min ahlil janna ne ñoom kat ñi ngi bokk ci ahlul janna wa qawlu man qaala laa yajuuzu ñi nga xam ne wax nañ ni du jaadu ci wali bi mu xamni wali yu la la yajuuzu zalik li annahu yukhrijuhu min al khawf nak xam yiñ koy xam daf leen di génne ci ragal wala ba'sa an yakhafu ta ben hay nekkut ci ñu ragal an yakhafu taghyir al aqiba ñuy ragal soppeku sen muccu والذي يجدونه في قلوبهم من الهيبة أك لنا قبنا ننكو فك جسن قلية أي وجل والتعظيم أكي ما قال والإجلال بتي أكي ما قال للحق منيهل يالا سبحانه تدنا ما سلم يزيد دفع يوكو ويربو تدفع مغ على كثير من القوف لكي ما قال موي رجل الله وقد بصر صلى الله عليه وسلم غير العشر بالجنة يونت صلى الله عليه وسلم نك بجلين يدود فكوا ونجا الجنة فقال لعمر رضي الله عنه وخ عمر نك وما يدريك لعل الله تعالى لأهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وما أدريك أنا لولا قملني لعل الله أمن يلا تلع شيننا لأهل البدر نيلوا بدر فقال موح اعملوا جفل ما شئتم لنصب فقد وجبت لكم الجنة يا الله وارل نتيان الجنة أو فقد غفرت لكم جيجل نالل من وترجي يا كار هنا في للوقوع يا كار جتبلا جو خمني لو أملا رواه البخاري ومسلم بخاري سرونكو مسلم سرونكو بطي رتنا أحمد أك أبي داود ابن أبي شيبة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالجزم ولفظه إن الله اطلع على أهل بدر maanaam ci dogu ci ne yàlla waral na ci ahlu badr aljana wala ci beneen riwaay mooy jéggal na leen seen bàkkaar yëpp mooy inna allaha tala ala ahli badr yàlla dafa feeñu ahlu badr fa qaala mu wax i'malu ma shi'tum jëf leen lu leen neex faqad ghafartu lakum jéggal naa leen ni ki noonu imaamu tirmisi solo na ak nisaayi boo demee ci ahmad ci benn isnaad boo xam ne ci chartu muslim la ñu jëlee ci xadisu jabir ibn abdillah xadis marfuu mooy lan yadxulan naara ahadun shahida badran kenn maanaam ku seede ku fekkee xare badar doo dugg dugg safara ci jullit ñi nag ba tey mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ laa yadxulun naar ahadun mimman baayaa tahta shajara du dugg safara mukk koo xam ne jaayante naag man ci roon garab ga kon yooyu yëpp ay garanti la yuñ garanti loon saxaaba yi ci àjjana loolu li muy firndeel mooy yemut ci fukk yi rek waaye am na ñeneen ñuñ garantil te xam nañ ni garantil nañ leen ko kon xam ni waliyu yàlla nga yàqu dara ni gi noonu muslim euh, ah imam ahmad solona ak muslim abu daawud tirmizi euh, rod na tamit ci saxixa yi ne yonent bi sallallahu alayhi wa moom arsala li saabit ibni qays yónni na saab yónnee na saabit ibni qays ibni chammaam ne ko innaka lasta min ahli naar yónnee na ko ay kaddu ne ko yow bokkoo ci wa safara walakinnaka min ahli janna yow ci ñooñ àjjana nga bokk ñu solo jëlee anas moom itamit mu ne yonent bi alayhi wa sallama na ni ñu solo jëlee ci anas radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na kam min ash'asa a'bara zi timrayn laa ya'ubuhu lah law aqsama ala allahi la abarrahu minhum albara ibnu malik xadis bi di xadis bu am solo léeg-léeg nga gis nit koo xam ne mbub mbub mu oyof lay sol tilim di taxawaalu ci mbedd mi pënd lool tilim lool waaye nag yonent bi sallallahu wa sallam nee bu dogoo ci yàlla rek yàlla def ko mu ne kooku bokk bokkoon ci albara ibnu malik kon kooku xamoon na la ko yàlla def ni ki noonu tirmisi génnee na xadis boobu daal koy solo euh, ta wér na itamit ci uwaysul qarani li ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon saxaaba yi ne leen bu ngeen ko gisee na ngeen sàkku ci moom mu ñaanal leen yàlla te melo yi moo nekkoon ci moom pënd tilim doyadi lool te Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ba mu ko gisee dafa dëggal li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ci moom mu sàkku ci moom ñaan kon yii neena boo ko toppee wa amara baadu mu ne wa saxa wér na alxadisu xadis fi uwaysin ci uways wa amara baadu ashaabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na ñenn ci ay saxaabaam bi talabil istigfaari minhu ci sàkku istigfaar ci ñoom ñu sàkku ci moom mu jéggalu leen yàlla wa gayrihim ak ñu duwut ñoom kathirun min assunnati bëri na rot bëri na lum rot ci sunna fa hal آه، لهم رضوان الله عليهم الخوف وأمنوا مكر الله عز وجل واجترأوا على جنابه الأقدس كلا بل كان خوف الحق عز وجل شأنهم الخوف المتمخض لذاته من ne ني ñi xam giñ لن دون اك بيغلي بلن bi بيغل تي bégal ci لولو ndax ñu dem bay def am nu min makrilla wolu pexem yàlla ndax dem na ba ñuy xotti xormay yàlla ci ak cellam mu ne déedéet li nekk mooy daf leen yokk ragal yàlla ragal yàlla goo xam ne yàllaa leen ko jagleel mu jëm ci wàllam ndax wax na ci alquran ne innama yaxsha allaha min ibadihi ulama ñi gën a ragal yàlla ci xeet bi mooy ci ci jaamami ñooy boroom xam-xam وقال الإمام القشيري أيضا في رسالته إمام القشيري باتاي وحنا في رسالة مغمو رسالة قشيرية فصل لي أكتر قليلا من فإن قيل فهل يسقط الخوف عن الأولياء قيل أما الغالب على الأكابر فكيف الخوف وذلك الذي قلنا فيما تقدم على جهة الندرة من غير ممتنع وهذا السر السقطي يقول لو أن واحدا دخل بستانا فيه أشجار كثيرة وعلى كل شجرة طير يقول له بلسان فصيح السلام عليك يا ولي الله فلو لم يخف أنه مكر لكان ممكورا وأمثال هذه من حكايتهم كثير لي أبدا قليلا فإن قيل ندم وخيفنا هل يسقط الخوف نخ ragal daf maanaam yusqitu ndax dina rocci alxawfu ak ragal an il awliya yi ci waliyu yi qiila ñu ne amma al xaalibu daal li noot ala ak alal akaabir ci waliyu yàlla yu mag ñi fa kaana al xawfu ñoom de saxoon nañ ci ragal yàlla wa dalika alladi loolu mooy li nga xam ne qul naa wax nañ ko fii ma taqaddama ci lu ñu jiitaloon ala jihati nudr ci anam woo xam ne anam wu néew la xeyru mumtaniin ci loo xam ne kenn mënul koo tere wa hada sirru saqati kii mi ngi maanaam sirru saqati ngi nii sirru saqati kenn la woon ci borom xam-xam yu mag yi doonoon suufiyanke yaqulu mi ngi wax ne law anna waxidan daxala bustaanan bu fekkoon kenn ci yéen dafa dugg ci ab tool fekk ci tool bi ay garab yu bari ci kaw garab gu ne mu fekk fa ab picc picc bi di wax ci wu set ne ko assalaamu alayka ya waliy allah yal na jàmmab yàlla wàcc ci yow yow waliyu yàlla bi mu ne fa law lam yaxaf su fekkoonte ne ragalut annahu naka loolu kat picc yooyu di wax makrun pexe la la kaana mamkuuran dina nekk koo xam ne mamkuur la mamkuur mooy eh, kuñu fexel وأمثال هذه حكايات وأمثال هذه من حكايات من ne دينا bëri يملني dina نتلي فصل لي ak teqali فإن قيل فهل يجوز أن يكون وليا في الحال ثم تتغير عاقبته نخ ولي dina nekk waliyu dem ba jamono قيل من جعل من شرط الولاية حسن الموافات لا يجوز ñi nga xam ne dañoo boole ci sartu wilaaya xusnul mu mu muwaafaat mooy maanaam rafetal ak dund ñu ne laa yajuuz loolu du dagan laa yajuuz zalik wa man qaala innahu fi lxaali siddiqan summa yataxayyar ak wa man qaala ak ñi wax ni innahu fi lxaali moom kat ci xaal googu mu taxaw muminun ala alxaqiqa jullit la ci dëgg-dëgg wa in jaaza an yataxayyara xaaluhu doonte ka dina jaadu mu dem ba jamono xaalam boobu soppeeku eh, mu eh, xaaluhu yataxayyaru xaaluhu baad ginnaaw gi xaalam soppeeku mu ne laa yabcudu an yakuna waliyan fi lxaali siddiqan summa tataxayyar laa yabcudu du soree an yakuna muy nekk waliyan waliyu fil xaali ci benn jamono sadiqan di ku dëgg summa yataxayyar topp mu soppeeku wa hada alladi naxtaaruhu nahnu mu ne ñaar ñii biñ ci tànn ñun wa yajuuzu an yakuna maanaam bii lañ ci tànn wa yajuuzu dina jaadu an yakuna min jumlati karamati waliyin bokk ci karaamay waliyu yi an yaalama annahu mamunul aqiba mu xam ni moom kat mujj gu rafet lay am wa annahu laa tatagayara aqibatuhu mu jëm du soppeeku mukk fa taltaxiqa haadihi al masala mimma dakarna loolu nag dafay masala bi day yéeg ba yeg ci liñ tuddoon mais anna al waliya yajuuzu an yaalama annahu waliyu dina jaadu ci moom mu xam ni waliyu la kon ci biir lii liñ ciy mën a mooy waliyu yàlla bi nga xam ne wilaayam sax na kooku du dellu mukk di nekk ab nekk eh, koo xam ne dañ koy rekki ci wilayatom boobu wa nuqila al imaamu al allaama wa naqala al imaam toxal na ki nga xam ne mooy al imaam di ilimaan al allaama di xam laa koon an nawawi toxalee na lii jëlee ko ci xusayri mutashahidan bihi di di ko seede fi kitaabihi bustaanil arifin ci téeréem bu ñuy tuddee bustaanil arifin والحمد لله شنت نيل نيل أولا تنجل بين وآخرا أكشموت وصلى الله نيل جل على سيدنا جنسان محمد وآله أكجنم وسلم تم لي مقدمة بي محمد الحافظ التجاني موكدف درس بيب لي موند موي ناخ ولي يودينا خامني ولي يولا ولا دوكو خام ولا دينا جادو تي موم مو خامكو ولا جادو تي موم لي جادو موي ولي يوبي خامني ولي يالله ndax ñi wax ni jaaduwut mu xam ni waliyu la neneen dañoo ragal mu bàyyandiku waaye nag li koy dëggal mooy waliyu bi su xasee ba doon waliyu bokk ci e, ñi yàlla méngool boppam kooku mën a tuta dellu ginnaaw mukk moo tax xam gi ni xam ni waliyu la loolu lu jaadu la allahuma salli ala sayyidina muhammadin il fatih lima uliqa walxatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq